digal la lu mu digal képp ku ko yaakaar moom sëriñ Touba bisu 18 safar bu dellu see nga di ko ci santle boromam 18 safar 2019 mbokki jullit yi nekk fii ci Argentine wuy jinan wooteeb Seexul Xaddim bo bi ci santle ko boromam ci bis bii dundal ko nag ci anam yoo xamee ni itam yu mucc ayib la lool xëye jàng alxuraanul karim xasaa iti maam cheikhul xadim salaatu ala nabi yendoo bernde mbokki jullit yi jóge fenn fu nekk daje safonte dundal bis bi ci anam yu mucc ayib lool invité nag mbokku nasaraan yi nga xam ni itam dañu nekk ci réew mi ngir ñu daal di teewe bit bi nu mel bis bi nag mucc ayib am solo lool ci teewaayu lenn ci kilifa yoo xam ni kilifa yu réew mi lañu ñu daal di sax yëkkati ay kàddu rekk daal di wane seen mbëgg daldi itam namm am ak jàppante ak askan bi nga xam ni mooy askan bu senegal ca nekk ci réew mi mu doon bés yoo xamee ni mu ci naay lool lu bari ci ay njariñ itam daal di fi juddoo ñu daal di amal nag ay bernde yoo xamee ni itam dañ ko jëmale ci taalibe yi waaye itam jëmale ko ci gan ñi nga xamee nii rek ñoom ñoo nekk fii ci tànt bi nga xam ni moom lañ doon defee màggalu 18 safar di yóbbe sax mbokk nasaraan yi jamono bu ne waxtu bu nekk ñuy xemmeem diine lislaam di ci tàbbi ñu tubal fi nekk lim bu tàkk lool ci ay nasaraan yoo xam ni tey dugg nañu ci diine lislaam nekk ay taalibe Cheikhul Xadim anam bi ñu taxawa bis bi dal di yóbbe sax ñenn ñi àll bu ñu xoolee mbokk mi nga xam ni itam dafi yamoo ak bis bi di fi xew mu représenté fi woon fédération football bu Sénégal bis bi yóbbee na ko àll dëgg. sama xol dafa sedd man bu ma demee Sénégal dinaa am lu may wax su ma demee itali dinaa am lu may wax puisque communauté bi yaakaaru moon ni lii am na Pastef bii lii am na kon maa ngi ñaan ci bisub sëñ Touba bi jàppoo bi ngeen jàppoo yàlla na yokku. lii ngeen def nii ngeen def mu doon sama xol dafa sedd ba mu maa wax ma am émotion bi ma am musuma ko am ba mu juddoo ba tey bu leen tiit dara lépp lu ngeen yaakaar fii di ngeen ko am man maa la wax loolu ndegem lii nii ma gis nii man mbetteel bu rëy laa am kon sëñ Touba mi ngi seet mi ngi mi ngi mi ngi kenn ku ne na nga xam ni bis ni ki tey yaa ngi ànd ak sañ Touba foo jëm amul dara lu ngeen tiit xew yi di wéy di sax yóbbe mbokku nasaraan yi ba ñuy xemmeem li ñuy def ba sax ay kilifa yoo xamee ni itam yu yore ay ndobbay tànk yu mag lan ci réew bu Argentine bi ci anam yi nga xam ni moom la ñuy tudde yàlla di yëngal suñu yaram di yëg yàlla ba sax ñoom ñuy def comme ni ñu koy defee ñi nga xam ni ñoo di kuréel bu xidma ànd ak mbokku Baay Faal yi taxawu bis bi ci anam yu mucc ayib lool ci anam yi nga xam ni itam moom la ñu joxe ñam yi mucc ayib bu mag bi lëkkale collectivité yi daldi di fay teew ñoom itam yëkkati ay kàddu wane seen yëg-yëg ci bis bu mag bi waaye itam daldi yëkkati bandera bu Argentine dal koy jagleel que es la bandera de la República Argentina. Estos colores que se hicieron con el cielo. ginnaaw gi jëwriñ Talla Sall daal di yëkkati kàddu feeñal mbégteem sant itam mbooleem mbokk taalibe yi ci taxawaay bi. na kenn ku jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba sëriñ Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg tëwér ginnaaw loolu nag ñoo ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala di junni suñu sang Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu jàmbaar ji xaadimu rasul suñu borom yokk ay leeram te taas na ci barkeel bis bi nag wax dëgg yàlla tey suñu kàddu ci bari cant yi maanaam kàddu yi kàddu yi cant la ak kàddu yi ngërëm ak kàddu yi mbégte ndax bis bi tey képp ku fi teew ku nekk rek sa xol sedd na dañuy ñaan nag ci seexul yi mi nga xam ne moom la ñuy liggéey liggéey bii bis bu ñëw rek dàq dàq bi jàlloon te lii day wane ne sëñ Tuubaa maanaam bisa teem bu nekk gàccee la bisub démbam ndax màggal gu nekk jaar na fi waaye bis bii moom ku ne xam na ni maa mosu fi am te yoonu Sëñ Tuubaa nag noonu la baaxoo maanaam bu ñëw rek day gàcceel bi jàll fi mu toll bu déwén bi day gàcceel bopp tey bii. édition màggal 2019 Argentine ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu may ñu ñu teewee ko ay at yu bari ci barke Cheikhul Khadim Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul